Euh, le le bilan de Macky Sall non noo ko gisee. Macky def na yu baax mais yu bëri daa am ay gàllankoor. Mhm. surtout côté dund gi. la vie est chère. dafa cher trop courant bi dafa cher trop ndox mi dafa chair trop assainissement dañu am ay problème assainissement. ça c'est vrai eau pluviale comme eau usée éclairage public bi nekkul partout dans le pays. am na ñoo xam ne amuñ ndox bu ñu naan si biir Sénégal. Mm-hmm. am na ñoo xam amuñ ay tali yu jaar si biir Sénégal manqué na lu bari lu ñu war def. loolu c'est le côté sombre. waaw mais bu weesoo loolu aussi Macky Sall c'est les routes. non non Macky Sall c'est les infrastructures. tamit tamit si côté aussi Macky Sall c'est le transport. si de droit aussi. waaw waaw là moom je suis d'accord nga xam nga xam nga le bilan immatériel. Mm-hmm. dafa am solo. mais est-ce intéresse tout le monde. si ñu ne ci coin reculé yi ñoom seen yoon newul ci ay démocratie état de droit ah. si mais am ndox am courant am jiwu ñu mën a intéressé mais mais c'est important dëkk bi tegu ci yoon mhm. le magistrat warul def politique ki nga xam ne dafa nekk dafa nekk dafa nekk ci biir ci benn ministère yaa responsabilité yu mag warul def politique mhm. ñëpp waruñu politique ah c'est vrai c'est que il faut ñu tegaat état de droit defaraat la république defaraat l'état mhm. pour ñu mën a avancer yëpp ay chantier la. Mm-hmm. ay chantier la. Mm-hmm. mais bu loolu weesoo aussi am na lu baax. non am na def na lu baax. côté infrastructure par exemple. mais mais mais ku génn fii dem Touba xam ne euh, péage yu baax na Touba am na njëriñ. da ngay dugg si Sénégal yenn dëkk yi xam ne am na ay tali. Mm-hmm. xam ne am na éclairage public am na lu baax mais lépp am na lu des lu bari. jafe-jafe ndaw ñi émigration euh, clandestine wala migration irrégulière loolu na ko gisee. loolu yëpp gis nga ñu ngi naan ndaw yi amuñu xëy. kenn mënu jox ndaw yëpp xëy. mais créer condition yi nga xam ne mooy tax ku nekk utile boppam mu lew ko. ça fait défaut waaw loolu suñu problème la ba pare yenn financement yi dañ koy par parloo. loolu sami ngi am ba si am na daanaka dénoncé mais avec yu mujj. am na am na peut être ay DER ay. ANPEJ est ce que koy joxe ñoom jiite day bëgg lu baax. mais ñi mu dénk des fois du nekk dañu dëng. Mhm. mais mun nañu ay njuumte suñu koy doxalee. Mhm. yooyu yëpp grand Sénégal bëri na chantier te le président Khalifa heure bu teg son projet politique di ngeen xam ne am na vision am na fu mu jëm vraiment pour pour pour Sénégal avance. Ah,